financement il faut que ñu toppatoo ko loolu mooy li xaw a manqué tuuti ci secteur bi looloo tax ñu lëkkaloo ak CNCAS caisse nationale du crédit agricole Nous gërëm di féliciter son directeur général ci li le lëkkaloo ak ñun ñu liggéey ci ay weer ba mën a def forum bi fii loolu financement boobu li tax mu am solo mooy dañoo yàgg gis ni muy jigéen ñiy liggéey ci marché yi poisson muy marché centraux au poisson, muy poisson. jigen ci de transformation yi pour ñu jot ci jën yi souvent fay jafé joxé na sax exemple marché central au poisson bu Dakar nga avons fait dafa choses yor sen xaliss bu ñëwee suba avons yor sen choses xaliss jigen bu soxla ñu jox la ñaari junni bu ngone nga fay len ñaari junni ak juroomi témèr wala lu ko loolu la Nous di wax usure lolu monte wey ci secteur bi mon président def ci déjà 150 millions mais dañ ko bëgg lawal fep pour que partout ci biir Sénégal jigéen ñi mën jot ci financement yi avec un taux réduit pour mën liguer. donc lolu bokku na ci li tax aussi forum bi ñëw ñi nga xamni ni ñi ngi ci géej gi tamit muy pêcheurs yi muy mareyeurs yi soxla nañu financement Mon tax ba bi président di inaugurer Potou ci fanweeri fan ci mois de mars def na fa annonce bu am solo yéen ñëpp dégg ngeen ko ndax nee na dina jël ñaari milliards jox ko financement jigéen ñi jël yeneen ñaari milliards jox ko financement ñi nga xam ni ñooy acteurs de la pêche muy pêcheurs yi ak mareyeurs yi. loolu nag suñu lëkkaloo ak caisse nationale crédit agricole Sénégal lu am solo la ndax ni turam bindoo muy caisse nationale du crédit agricole du Sénégal ci agricole bi pêche a ngi ci biir. élevage a ngi ci biir moo tax ñu lëkkaloo ak moom pour que fonds bi nga xam ne amoon na fi mécanisme bi fi amoon ñu dundalaat ko joxaat ko yeneen forme yu bees ba nit ñi man koo jot wante nag liñ leen di ñaan mooy financement yooyu bu taxawee ngal la ku ci am financement nga remboursé parce loolu lu am solo la